asalaamaaleykum euh, chers internautes ak ñi nga xamante ni yéen stan li di Rewmi TV da leen ak jàmm si seen euh, deuxième numéro bu émission euh, biir réew mi kon nu ngi defee rek nee nañ biir réew mi donc lépp loo xamante ni daal ci biir réew mi lay xewee loo xamante ni day amal importance population bi ñu leen ko doon waxtaan ak yéen ngir gën leen a gindi ci fànn yu bëri bëri comme ni ñu ko waxee ci politique ci économie ci santé bien-être lépp loo xamante ni daal askan wi dinañ ci gis seen daal dinañ ko andi fii ci Rewmi TV ñu daal di koy waxtaanee donc euh, tey nag ma daal di am mbégte di fi dalal euh, benn kàngaam bu mag ñu koy wax euh, Mouhamed Moustapha Kane nekk expert international en marketing et communica communication nekk aussi directeur général bu Avantage Consulting ñu war waxtaan nag lépp loo xamante ni mu ëmb biir marketing rawatina marketing politique bi nga xamante ne jamono ji ñu ci bëri ñu ngi ci suub mais maîtrise ko donc tey nag dina ci indi ay leeral yu bëree bëri bëri yoo xamante ni moom moo ñeel lépp li ëmb wàllu marketing lu ko dara ci entreprise yeeg ci nit ki waaye tamit ci lépp loo xamante ne daal euh, activité la euh, ñu waxtaane ko tey donc monsieur Kane ñu ngi lay nuyu euh, di la dalal nga xamante ni mooy Rewmi TV. merci beaucoup Mor pour euh, cette invitation je voudrais vous féliciter déjà euh, pour réew mi ni ngeen ko doxalee ni ngeen ko tegee nekk ay jeunes di koy doxal defe naa lii mooy doxal réew mi di lay yokk encourager yow ak ñi ngay liggéeyal si. da bi traité actualité bi mu bañ nekk rek du sensationnel parce que dafa bokk ci rôle média muy capacité citoyens yi pour ñu war a xam seen taxawaay te jàppale réew mi mu jëm kanam donc loolu c'est très important ma buggoon soo ma ko mayee euh, ma jaale waa Sénégal ak ñu dul waa Sénégal ci ki ñu perte ku mag kooku di ba Alioune Badara doon doonoon koo xam ne booy wax leadership nekkoon na ci moom booy wax leadership ku xaw wane la te defe naa moom kese doyoon na ci jàngale lan mooy leadership du nag ne mooy gën ñi ci des xëy na moo ci gën a fës noonu laa bëgg ñu déggee ko te bëggoon naa mu doon koo xam ne jeune politicien yi en tout cas dina leen inspiré yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana voilà donc euh, ñu koy jaale aussi mbokk mi yëpp di euh, jaale aussi président Macky Sall nga xamante ne démb demoon na fa euh, doon def li nga ni moom mooy njaalam mhm. donc dañuy dugg rek ci but du sujet ci waxtaane li nga xamante ni moom mooy wàllu marketing politique mais d' dañuy wax ci li nga xamante ni moom mooy lii di marketing mhm. donc monsieur Kane boo ñu mën a ñëwal ci li nga xamante ni moom mooy marketing mhm. parce que ñu bëri dañ koy faral di gis am na ñu bëri ñoo xamante ni bu ñu amee bac loolu wax nañ naan lan mooy marketing parce que bu ñu nee marketing c'est un terme anglais. Mhm. Euh, bu ñu ko bu ñu jéemee génne sax mën nañu génne li nga xamante ni mooy le mot market. qui mhm. signifie marché. Mhm. mais euh, d'une façon globale lan mooy lan mooy marketing. waaw ci gàttal parce que samay waxtaan loo ci marketing moo du ma pare. <laughs> mais ci gàttal euh, comme ni nga ko waxee mu anglais la boo xam ne dafa am market mooy marché. ak la forme ing mooy le fait ngay def dara. donc marketing ci njëlbeen ba ngi firi. comme nooy def ba góor góorgóorlu ci marché ba ba jaay génn ci loolu mooy njalbeenu euh, wala boog loolu mooy firiwu marketing daf fekk nag ne marketing ba dafa am yoon gu mu jaar booy seet ba seet euh, wax ji moo marketing boobu euh, mi ngi njëkk a feeñ ci États-Unis au début du vingtième siècle fekk ay baykat dam koy wax souvent baykat yi ay baykat ñoo doon dem Harvard Business School di seet ay professeur d'économie agricole di leen di laaj ñun dañu bëgg xam naka la ñuy def ba suñu marché dox ndax dañuy bay ba ci fin bi yenn saa mu dox yenn saa yi du dox donc bu ñu fa dañu leen doon wax I want to know how to market my dama bëgg xam naka laay def ba sama produit yi dox ñooñu di di jox ay xalaat ne ah boo bayee lii nga bayaale lële ngir bu jeexee yow nga am loo xam ne keneen amu ko wala boo bayee nga denc tuuti ba ci kanam ñu leen jox ay astuce daal maanaam pour ñu seet ñu ciy génnee bis ñu laaj baykat yooyu ne leen waa ak baykat lu muy defee élect université who are ñu wax leen baykat yooyu naan they are our marketing teachers ñoom ñoo ñuy jàngal marketing donc terme marketing boobu foofu la jugee waaye marketing comme ni ñu koy doxalee tey ak loolu soriante na parce que boobu bi ñuy wax marketing mooy rek nañ gi naka la ñuy jaayee mais tey marketing en tant que fonction de l'entreprise en tant que euh, fonction vraiment assez importante en tout cas dans dans l'entreprise en tant que xam-xam bu xarañ a xarañ a mbir la boo xam dañ ko tabax ci yoon mu jóge foofu publicité bi nga xam ne amoon na depuis bu yàgg ñëw dugg ci euh, psychologie ñëw dugg ci étude de marché yi ngay dégg c'est la sociologie ñëw dugg ci euh, analyse financière yeeg ñoom seen ça marketing dafa nekk di forontu bépp xam-xam boo xam ne war na ko mën a jëriñ ngir mu teg dara di ko forantu di ko forantu di ko forantu di ko forantu ba tey mu doon li mu ne c'est dans les années soixante soixante déjà McCarthy développé déjà le concept des 4P pour wane ne booy jaay foog nga am looy weccee euh, boo jëlee euh, Neil Borden ñëw teg ci le marketing mix mm-hmm. ensuite les euh, les euh, comment vous appelez les Kotler et autres euh, vont en fait créer le concept de marketing management qui mm-hmm. aujourd'hui encore plus, plus euh, avec de nouveaux concepts. Voilà. Voilà. Vous avez tout à l'heure les 4 P en mm-hmm. parlant de. Euh, en français, on dit produit, prix, distribution, li nga xamante ni moom mooy la promotion bu dee en anglais on dit products, price, euh, donc def place ak li nga ni moom mooy euh, promotion. Mm-hmm. Mais donc bu dee Sénégal, chaque fois on, compare li nga xam mooy marketing. li ñu njëkkaale moom mooy euh, entreprise bi du ñu ñu dàq lépp loo xamante ni moom mooy kii bu ñu nee marketing rek mhm. euh, peut-être wax nga sànq ay cultivateurs yoo xamante mhm. ko utiliser mhm. ce que fi nga xamante ni conception bi sénégalais amoro bi boog bi ñenn am ci euh, marketing bu ñu nee marketing rek entreprise la ñu wax waaw lu ko waral mooy ki koy gën a ki ko njëkk ki ko njëkk siiwal di ko doxal wala bañ ci doon njëkk xalaat entreprise moo taxoon dañ nekkoon ci àdduna boo xam ne historiquement dañ nekkoon dans une révolution industrielle ci dix-neuvième wàcc ba ay début vingtième mu doonoon jamono joo xam ne entreprise li ñuy defar moo gën a tuuti li nit soxla jamono jooju kenn daanul woon wax waxu marketing ndax boo defaree balaa ngay pare day jar après la crise de vingt-neuf mbir mi jaxasoo euh, ñu indi ay xam-xam yu bees notamment la macroéconomie dugg si et cetera les politiques du New Deal ñu xalaat ne daal war nañu mën a góorlu ba jàppale ñay defar ak ñay jënd ca jàppale boobu moo indi l'accroissement de l'offre maanaam la ñuy joxe la ñuy defar technologie bi gën a xarañ xam bi gën a baax la ñuy defar gën a bëri entreprise yu bëri ñëw ñu to nekk situation boo xam ne la ñuy defar moo ëpp lu ñu yi soxla boobu nag lañ taxaw ne comme la ñuy defar moo ëpp lu ñuy soxla te ku nekk war na cee mën a génn naka la ñu war a mën def foofu lañ commencé nag di xalaat ci ban yoon naka la ñu war a tegee benn stratégie pour mën a xëcc clients yi dugg ci ñu dem. donc donc day day li nga xamante ni moom mooy l' esprit concurrentiel wala. concurrence ñëwoon na que bu njëkk ba concurrence soxlawul woon xam nga foo xam ne ku mel ni Senelec tey amul concurrent je veux dire amul concurrent formel je veux dire amul kon kooku heureusement ñoom ñu ngi dem marketing c'est a je les salue c'est une grande entreprise voilà mais tey am na si service am ne xëy na concurrence bu bëri mm. ko ñaaree da nga naan amul mujjee terewul nag war nga def marketing loolu moom yàgg naa ko wax euh, ça fait très longtemps voilà c'est ça mais xam borom xam-xam yi ñoom ci foofu lañ daan xool économistes yi d'abord ñoo njëkkoon nekk di ci xalaat euh, voilà bul y a eu beaucoup de théories là-dessus notamment la théorie classique la théorie néoclassique ensuite euh, la théorie keynésienne ñoom ñëp xalaat nañ parce que dañ jàpp ne système productif ci entreprise lay démarrer état su bëggee dox entreprise mooy koy doxal ndax entreprise mooy recruter mooy fay ay salaire mooy permettre salariés yi am lu ñuy jënd mooy fay impôts yi mooy importer et cetera donc lépp foofu la war démarrer moo tax économistes yi mësuñu ñàkk faale loolu au contraire dañ ko def ci au centre de leur préoccupation donc loolu la ñu mës a xalaat la bi problème boobu ñëwee tamit ñu seet naka la ñu war def pour indi ay clients foofu tam économistes yi tam dañ ci dugg pour jéem seet ban xel ak ban xalaat ak ban yoon lañ war a teg ngir dimbali entreprise mu dem loolu pour wane xalaat yeeg xam-xam yu njëkk yi demul woon ci keneen xalaat yeeg xam-xam yu njëkk yi ci entreprise la demoon ndax entreprise moo amoon problème boobu jànkoonteeg moom soxla gis ci ay yoon te mbirum doctrine maanaam mbirum xalaat ak recherche kenn du ko def ci lu amul njëriñ toujours xam-xam euh, ci wàllu xalaat ci wàllu gëstu toujours dañ koy def ci loo xam ne problème bu am la wala problème bu nar a am mm. li philosophe boobu waxoon ne l'apparition d'un problème nouveau créer le besoin d'une technologie appropriée ou en tout cas d'un savoir donc à chaque fois problème am léegi foog ñu wut solution wala bu ñu toogee gis ne problème nar na ñëw il faut ñu commencer xalaat na la ñuy def mais loo xam ne du problème bu ñu gis ñaare kenn du ci def recherche mais foofu entreprise yi moo taxoon ñuy ñu ci sonn. donc ñu jógee ci loolu mel ne am yéen yoo xamante ni euh, créé nañ ko ci wàllu euh, marketing. Mm-hmm. Euh, mun nañ cee wax li nga xamante ni moom mooy marketing direct bi ñuy wax man saa ñu ne marketing opérationnel. Mm-hmm. ba dem ba ci marketing digital. Mm-hmm. marketing d'influence li nga xamante ni moom mooy communautaire. <laughs> dem sax ba nuy marketing viral. donc yow yan marketing nga yaakaar ne fi mu nekk nii yooyu mooy li nga xamante ni mooy gën a utiliser si àdduna si. ak tamit fi nga xamante moom mooy Sénégal au delà pour nga mën a tontu ci loolu da ngay xool d'abord lan mooy organisation parce que organisation du rek entreprise organisation mooy ay nit yu àndandoo teg yoon teg charte wax fi ñu jëm seet naka la ñuy liggéey ba egg fenn loolu mooy organisation organisation boobu entreprise la mais tamit leneen lu dul entreprise la mooy ONG la mooy état la mooy mbootaay la mooy association la mooy lu la neex mbootaay gu ne dañ naan lii organisation la organisation boo di jënd ay jumtukaay yu mu soxla pour mën a liggéey boo jëlee par exemple lu mel ni entreprise wala luy entreprise d'ailleurs dañuy dem dañuy fekkee dañuy defar dañuy soxla wut ay fournisseur yéen tey ji am ngeen ay fournisseur xëy na am nga ay pellicule wala yu mel noonu wala ay clé USB yooyu soxla da nga donc yow da ngay dem boutique benn ci marché boobu ngay dem marché des fournisseurs boobu ñu fournir la ay matériel yoo xam ne moom ngay liggéey yenn saa nga formation wala yu mel noonu yoo xam ne ñoom ñooy ñëw jox la la nga soxla marché marché boobu c'est le marché des matières et des services professionnels entreprise bi dafay soxla tam am ñu mu liggéeyal mais ñu mu liggéeyal ñooñu ñu ngi nekk dans le marché du travail donc da ngay dem def appel à candidature def sa ay recrutement sangam nangam donc da waxtaan ak marché du travail pour seet doo fay wuti pour indi ay liggéeykat yoo xam ne mën nañu defal liggéey bi ñett ba nga dem ci wax le marché du capital le marché financier maanaam il faut nga dem wuti alal parce investir fay ay nit doxal jënd ay matière il faut mu laaj xaalis te entreprise bi ñaare même bu amee xaalis bi yëpp di jël risque xaalisam yëpp mu dugal ko donc day partager risque bi ak système financier bi pour ñaar benn mu mën a financer ses investissements ñaar mu mën a am fonds de roulement bu koy mën taxal muy dem bu ñetti yooyu taxawee entreprise day commencer dox on entre dans ce qu'on appelle un système de management boo amee ay matière am ressource am jumtukaay yi am nit yi da ngay liggéey bu ñu liggéeyee ba liggéey ba jeex dafa am lu ñuy wax output maanaam le système bi di jur la muy jur produit lay nekk wala service wala ñaar yooyu produit wala service boo nga xam liggéey nañ ko ba pare nag moom kese du indi xaalis pour li ñuy leboon ak li ñuy fay ñu mën ko ko ba am ci bénéfice il faut loolu ñu jox ko koo xam ne moom nangu na génnee xaalis fay ko ngir mu am lu ñu dugal ba la ñu leboon ñu fay ko suñuy charge ñu fay ko suñu bénéfice am ñu mën ko am marché boobu ñuy dem di wuti mooy ce qu'on appelle le marché des marché boobu ba nga xam ne cest à que euh, bépp organisation fa nga xam ne fa nga war a dem pour am fa la nga soxla marché boobu mu ngi tudd le marché des biens ki nga xam ne moo nekk diggante entreprise bi ak façon marché boobu ñu ngi koy tuddee marketing donc marketing liggéey mooy bu entreprise liggéeyee ba pare moom mooy dem seeti naka laay dem fexe ba ñañu soxla ñoom ñu ñëw jënd si wala bokk si ci li nga xam ne moom la ñuy doxal donc bu demee bu demee ba yooyu taxaw yëpp kon ku ci nekk dafa am benn type bu bu bu war a topp. Mhm. comme bu ñu nee entreprise yow marketing entreprise nga war a kii bu dee organisation ñu ne la marketing organisationnel. waaw moo tax ma ni sa dépend de la sphère d'échange. Mhm. bu dee ni ñuy jëflanteel mbirum commerce la. Mhm. ça devient du marketing commercial. mais yenn saay da yar nit yenn saay da ngay bëgg yar nit ñi. par exemple Sénégal depuis longtemps ñu ngi yar nit yi ci ne ah jigéen da warul toog rek ca kër ga. jigéen dafa war a génn góor góorgóorlu moo tax mu liggéey moom tam mu am parce que plus bu amee plus moom muy euh, am euh, d'abord muy gën a naw boppam mais tam jigéen bu amee day dimbali góor gi nekk ci kër gi te dañuy gis jigéen bu amee par exemple day gën a dimbali xale yi ci yar beeg ñoom seen et donc foofu boo gisee amul lu ñuy jaay ci produit wala service mais benn attitude la ñuy jaay benn comportement benn idée benn valeur su boobaa ñu ngi ci marketing social je sais pas si on yéen saa nga gis koo xam ne dafa naan man de ku mel ni président Macky par exemple taxaw ne man président la maay président réew mi dama yore réew mi dama bëgg doxal réew mi mais réew mi mënu ma ko doxal man kese ak lu ma am am am moyen d'état bu si si les citoyens ne participent pas du dem boo seetee bi Covid bi génnee ñu ngi doon gouvernement bi ñu doon politique yu bëri takk leen masque dee leen def gel dee leen di def lii bu leen seet ci nit ñi ñu siy sonn pour yee nit ñi sensibiliser leen ci côté boobu marketing boobu kon marketing politique la parce que ñu ngi def politique boo xam ne dañoo bëgg nit yi ak bokk ci loolu mun na nekk ci yeneen mën nañ ci joxe ay exemple ci kaname mun na nekk koo xam ne tout simplement euh, dafay bëgg na nekk koo xam ne dafa am yërmande ak di dimbali le marketing humanitaire et cetera donc booy seet ban type de marketing lañ amal affaire mi ngi dépendre ci ban type d' échange la organisation bi am ak cible bu dee cible bi l' échange est humanitaire on dit que le humanitaire bu dee mbirum sport la on dit que c'est un marketing sportif bu dee marque mbirum njaay la on dit que c'est marketing commercial et cetera et cetera voilà. mais kon pourquoi le Sénégal bu ñu nee nga ci école formation pour jàng boo ñëwee rek marketing euh, communication la ñu wax ne la ñuy jàngal alors que euh, li nga wax yëpp ñu bëri dañ koy soxla dans le domaine politique dans le domaine social dans le domaine humanitaire les ONG mais pourquoi au Sénégal bu ñu nee marketing rek la plupart des services yi nga xamante ni ñu koy joxee ci formation yi. Mhm. marketing communication lay nekk. waaw xam nga Mor saa ñu defee émission damay xaw a jëngu sax tuuti. Mm-hmm. maa ngi nuy nuyu du Niang borom euh, sama sago sama àndandoo. ndax yéen saa moom mun naa tàggoog sama sago ci yooyu. Mm-hmm. ndax daf ma metti daf ma metti trop. problème bi ñu am Sénégal c'est un problème d'adéquation de la formation à l'emploi tant que ñu ngi nekk système ay diplôme duñ ci génn. Mm-hmm. diplôme c'est vrai mooy sanctionner niveau wala savoir mais il faut que continue ak appellation yi ñu koy adapté ci li entreprise wala organisation soxla c'est clair nee naa la bi may doog a ñëw Sénégal maa ngi doon jàngale defe naa deux la defe naa IPAM ma ñëw fekk cours maîtrise lañ ma joxoon ndeysaan waaye dina ma dama bëgg a defal ma cours technique de vente ma ne ko naka la ñuy jàngalee technique de vente en quatrième année te loolu première année wala deuxième année waroon na fekk ñu rek la première année sax nga ko a jàng la contenu yi aujourd'hui c'est pas harmonisé gars yi xamuñu fu ñu jëm leneen li ci des tamit mooy euh, nit ñu defaree dañuy généraliste ñun dañuy généraliste ci lépp du rek ci marketing ah mm-hmm. boo demee ci économie dañuy généraliste boo demee ci presse bi même ci presse bi mm-hmm. tey pour nga des journalistes vraiment spécialisés problème la donc euh, on est généraliste en fait dans notre truc yooyu yëpp moo tax ma ne la c'est un problème très global boo xam ne dañu war a gën a comprendre ne monde bi dafa xarañ monde bi dafa spécialisé ñuy gën a seet naka la ñuy gën a mën a nekkee des gens très pointus moo tax tey ñu bëri boo demee ci MBA yi nga xam ne damay jàngale ci MBA yi ñu bëri dañuy am formation pare mais dañuy ñëw saan bëgg renforcer waat ci benn domaine parce que jàngoon nañ ko waaye xam ne am na lu gën a sew lu ñu ci gën a bëgg am te amaguñ ko am na école tamit ñu def ay certificat de spécialisation wala yu mel noonu mais loolu moom mbir mu am am njëriñ la boo xam ne war nga ci woo borom établissement yi woo ci surtout le ministère de l'enseignement supérieur mais aussi le ministère de la formation professionnelle parce que enseignement supérieur lu mu am am njëriñ ñoom université yi gën a toppatoo pour man enseignement professionnel ñoo war a toppatoo les professionnels yi nga xam ne ñoom ñooy dem di liggéey voilà mais donc yow boo boo amee seetlu ci Sénégal fii yéen yéen yéen de marketing nga gis ne moom communication d'une façon euh, globale euh, parce que bon peut-être ñu mooy ñëw gérer communication du genre mm-hmm. mais yéen type de marketing non dama lay expliquer dara par exemple man maa ngi nii damay def marketing yëpp. marketing bu nit sox dama koy def woy woy du ma def nag lépp ci marketing aussi il faut mu leer quoi mais je veux dire façon type de marketing bu ne war naa cee mën a góorgóorlu. pourquoi parce que marketing dafa am ay fondamentaux. marketing dafa am nu muy doxee. mi ngi mel ni comptabilité. bu dee da nga jàng comptabilité ba mokkal ko bu ñu duggee ci entreprise war nga fa mun def comptabilité bu ñu duggee ci ONG tam war nga fa mun def comptabilité. l' important mooy nga xam codification yi mais plan comptable yeeg ñoom seen existé na comme aussi en marketing y a des fondamentaux yoo xam ne boo ko xamee li ci des day yomb terewul nag pour nga dugg ci benn domaine fa nga dem yokk fa sa xam-xam heureusement l' avantage du marketing c' est que marketing toujours day ànd ak étude c'est-à-dire tey soo ñëwee ne ma dama yore benn société d'eau minérale kaay defal ma plan marketing li may njëkk def du xool yow sa liggéey ci biir li may njëkk def mooy dem étudier marché bi pour xam eau minérale lu muy firi kan moo fa nekk naka lay doxee et tout doog seet sama xam-xamu marketing naka laa ko ciy appliquer et grâce aux ONG il faut aussi le dire vraiment grâce aux ONG bëgguma tur ay tur ay tur programme de développement góorgóorlu nañ ba Sénégal ñu indi nit yi ñuy appliquer des marketing spécifiques loolu moo am na fi ba am na yenn école yoo xam ne tey commence nañ di def ay marketing vraiment très très spécifique dans leur formation parce que ñu ngi ci développement local développement communautaire wala yu mel noonu wala affaire ONG et cetera ñu ngi commencé di dugal marketing ñu demee noonu voilà donc loolu tamit avantage la li ci des tamit mooy souvent dañuy encourager étudiants yi bu ñuy def ay mémoire yenn saa itam ñuy jéem ci mémoire bi am benn spécialisation boo xam ne fa la ñuy dem liggéey ci ngir am ci xam-xam ak xarañ donc euh, ci loolu mel ne euh, mën nañ dugg tuuti ci li nga xamante ne mooy euh, côté marketing d'influence bi mhm. daal di pëccëxul dem ci li nga xamante ne mooy marketing politique bi ji mhm. foo tool ku nekk mi ngi def wàllu politique te yéen xamante ne peut-être que yéen ay mhm. di solliciter ngir mën ngi mel leen defal ay plan de communication comme ni nga ko waxee mu dem ba am ay vecteurs bëri yoo xamante ne ñu koy utiliser si biir ñuy wax naan ay affichage politique wax ay rencontres sur le terrain ay tractage ay colonne politique si wàllu presse bi média bëri fan ñu defee seen wàllu communication seen wàllu marketing mhm. ak ay débat politique yoo xamante dañ naan euh, bokk na ci biir marketing yi utilisé mhm. donc euh, yow fi mu nekk nii ban ban ban jàngat ngay ngay def euh, ci marketing politique bi nga xamante ne Sénégal ñu ngi koy def mhm. ndax bu positif la wala bu négatif d'accord dama bëggoon balaa loolu ñu leeralante tuuti ci concept yi nga xam ne bis bu nekk ku nekk créer sa bos xam nga marketing d'influence dëggantaan amul même dans pour les laboratoires pharmaceutiques dañuy def ay formation en communication d'influence tur la rek boo xam ne boo ko joxee day rafet day rëy te day jekk mais la finalité du marketing c'est d'influencer tout le marketing nag parce que ba ñuy définir marketing dañ ne lan c'est c'est l'ensemble des des des outils des méthodes des ressources mises en œuvre pour provoquer auprès de ses cibles les réactions ou les comportements et les attitudes favorables à la réalisation de ses objectifs moo tax bi ñuy wax processus marketing bi marketing processus ñett la connaître s'adapter agir efficacement pour influencer xam nga kon tout le marketing boo mën ti def la finalité c'est d'influencer des gens. donc donc le marketing euh, d'influence kon existé wul mot bu non je veux dire mot bu rafet la rek parce que le principe même du marketing. marketing dafa am ñetti principe yu am solo. le premier principe mooy bul def dara te jàngatoo. mooy connaître du ma dugg fenn def politique wala élection wala indi produit te jàngatuma marché bi ba xam exactement ni muy doxee mm-hmm. loolu mooy connaître mm-hmm. deuxième élément mooy boo xamee ba pare il faut nga adapté wu saa il faut nga seet ndax am nga moyens yi ak ressources yi mobiliser ko mm-hmm. ba nga xam ne di nga méngóog ñi nga bëgg waxal mooy connect mooy s'adapter mooy stratégie bi ñett bi mooy agir maanaam dañ jàpp ne bu fekkee xam nga ni marché bi di doxee wala nit di doxee nga adapté wu ba nga xam ne sa stratégie méngoo nag nit yi nga teg nag ay produits ay services ay commerciaux yoo xam ne boo leen tegee ci marché bi day dox Philippe Kotler dafa doon wax ne l'idéal du marketing mooy bu ñu tegee benn produit jarul sax ñu koy defal publicité maanaam day méngoog bëgg-bëgg ñu ni ba dañuy ñëw rek jël yóbbu voilà c'est voilà c'est loolu mooy idéal bi voilà c'est ça léegi li ci des nag mooy comme comme je te Euh, bon Sénégal les gens dañuy utiliser ay mots c'est pas seulement au Sénégal ah même boo jëlee ay buzz marketing ay on crée beaucoup de mots yoo xam ne bon li ko indi tamit mooy marketing du discipline boo xam ne ay science exacte la euh, marketing c'est d'abord une pratique et la pratique est toujours en avance sur la doctrine en marketing bokkul ak yeneen xam-xam yi boo demee comptabilité dafa am plan boo xam ne moo lay tënk tu comprends ce que je veux dire boo demee euh, je sais pas moi ay euh, Euh, suivi évaluation yi dafa am ay xam-xam yu ñu lay tënk marketing nag xam-xam yi duñ la tënk maanaam ñiy def ñooy def ba créer yu bees borom xam-xam yi topp ci ginnaaw pour mën koo encadrer moo tax li ci ëpp na ñiy créer lu bees tam dañuy bëgg pour wane seen bopp wala yu mel noonu wala pour siiwal ko jox ko benn tur boo xam ne day jekk loolu mais nag bon boo seetee techniquement ci biir maanaam euh, xam-xam bu taxawoon da ba pare xëy na fi ñu koy defee ak internet wala yooyu moo moo différent mais xam-xam bu taxawoon de politique wala marketing politique moom non marketing politique c'est le marketing appliqué à la sphère politique mooy li ma la doon wax bu njëkk ba cest à tout dépend ci ni ñu ngay amal affaire bu dee damay jaayanteeg yow marketing électoral bu dee dama nekk président wala maire bëgg yow nga jàppale ma sama politique marketing politique la bu fekkee dama nekk candidat bëgg nga fayal nga nga wateel ma on est dans le marketing électoral bu dee dama yore bëgg la dimbali ndax amoo on est dans le marketing humanitaire bu dee dama gis ne na ngay doxalee wala sa xam-xam wala sa na ngay dundee baaxul te dama bëgg mu changer je suis dans le marketing social et cetera bon noonu noonu lay. Euh, euh, en faisant juste benn benn analyse ci euh, marketing politique bi ñu utilisé mm-hmm. yow ban ban jàng nga ciy gis parce que Sénégal am na façon marketing bu ñu def ci politique yi ku ci nekk tu cherches à à à promouvoir ton image. Mm-hmm. ñenn ñi ils cherchent à jéem a jéem a suul image yu keneen mhm. donc façon marketing boobu nga xamante moo gis au Sénégal alors que euh, on dit que les premières euh, personnes yi nga xamante ne doon nañ def wàllu marketing euh, mhm. politique mhm. ci àdduna si mën nañ ci boole ku ci mel ne Obama mën ci boole ki nga xamante ne moom mooy Sarkozy ñoom cette façon politique bi ñoon def ils ont ils ont réussi à convaincre des certaines populations donc yow pourquoi le, Sénégal euh, manque à, à, à, utiliser ce type de marketing pour pouvoir euh, loolu laa wax sax pour. Euh, pour génn si pour génn si wala boog pour pour pour amadouer seen ay seen ay kii ak yooyu seen ay cible marketing yàlla xam na ne yàgg na am Sénégal. Hmm. voilà quand Senghor disait que à abla Wade que ni bopp bu attanul karaw mënul attan réew. ça correspondait à la perception des gens. Hmm. parce que Ablaye Wade était quelqu'un boo xam dañu jàppoon il est subversif. koo xam ne la dalul. Mm-hmm. teeyul dafa bëri affaire di yëngal dëkk bi Senghor laa wax de. Ah. moo tax Ablaye Abdou Diouf ne ko Ablaye Senghor dafa doon wax ni yow sa bopp attanul karaw. Mm-hmm. moo tax mënul attan réew. et les gens yi adhéré. et c'est ce qui a permis à Senghor de rester pendant vingt ans chez nous. Abdou bu mu ñëwee il a incarné l'homme sérieux l'homme poli l'homme procédurier et l'homme qui respecte les règles l'homme qui respecte les normes l'homme éduqué et l'homme qui a une très boo xam ne il n'avait pas cette organisation mm-hmm. ça a créé une certaine euh, nit yi dañuy wóolu woon Ablaye une certaine confiance. Mm. dans Abdou Diouf ñu bëri dañu wax ni ne Ablaye Wade bëgg naa ko loolu waaye wóoluwuma ko. dit fit la quoi. lan la wax wóoluwuma ko question d'image bu ñu dawal. Mm. donc pour moi de y a une stratégie derrière. Mm. que que la stratégie soit raisonnée ou pas hein il faut le comprendre comme ça voilà. Ablaye bu du ñëwee 2000 def face à Abdou Diouf il a compris que c'était sa dernière chance te mënatul di kafouiller ak di def nu mu daan def il fallait que mu gis yoon pour seet nu muy def ba jënd ci mais. Ablaye Wade est allé chercher le grand Momar Thiam ak ñeneen ñu wër ko mais bon yéen da ngeen jàng marketing kaay leen dimbali ma comprends même si Ablaye Wade xam na sénégalais bu baax marketing politique leneen la donc Ablaye Wade lu yomb la ci def mooy dafa ñëw xool ne man élection su ma xam ne rek gagné fan laay dem il regarde la démographie de l'électorat xool ne la cœur de l'électorat c'est les jeunes mais moom màgget la mais dafa teg stratégie pour seet naka laay def ba jeunes yi gis ci man koo xam ne moom moo leen doy donc Ablaye Wade ci la dem commence di làkk anglais di utiliser ay ordinateur wàccee veste ba sol euh, xaw ma affaire yooyu nu mu tudd kii yoom yooyu la espèce yooyu fàtte naa nu mu tudd ah, yooyu wàccee veste bi mm-hmm. tu il était vraiment l'incarnation du jeune intellectuel type américain et cetera et tout booy gis seen bopp ci moom donc tous les jeunes se disaient voilà le gars qui nous comprend voilà le gars à qui on ressemble voilà le gars qui n'est pas débraillé qui n'est pas trop serré très très trop strict mais c'est un gars flexible, un gars qui comprend, le monde. Et nous, on a envie de compter. Et voilà quelqu'un qui nous comprend. Voilà. Et quand tu regardes, après, il a, il a utilisé, moi, il en communication, la USP, la, la Unique Selling Proposition. ba ba taxaw di wax ak gars mais benn wax rek la doon laajte kan moo fi am liggéey yëkkatil sa loxo ku amul liggéey yëkkatil sa loxo jeex na parce que le cœur du problème c'était l'emploi mais loolu dafa en amont dafa jàng na ko jàngat na ko xool na ko gis na ko comprendre ko ne kon sama cible mooy jeunes yi seen principal problème c'est l'emploi donc naa taxaw ci defar sama bopp ba jeune bu ma gis bu ma xool gis ci man boppam un deuxièmement la may wax méngoog ñoom la ñu bëgg dégg ndax loolu mooy tax ñu wateel ma bon mënoon nañ gën a sore ci analyse boobu parce que defe naa avec les Kassé qui est l'actuel conseiller du président ak ñeneen defoon nañ ci benn euh, benn dîner débat à l'hôtel Novotel je crois il y a très longtemps mais c'est juste pour dire que ni Euh, marketing politique boobu ñuy wax ci ay Obama ak ñoom seen amoon na d' abord Sénégal. Mm. d' ailleurs euh, Abdou Diouf bokkoon na ci li ñu ko doon xasee en 2000 mooy dafa demoon wooye Jacques Séguéla. Mm. Jacques Séguéla c'est lui qui a fait la stratégie de market de de market de de la stratégie électorale de de de Mitterrand. Mm. quand Mitterrand était candidat face à à je crois à Valéry Giscard d'Estaing je crois euh, pour pouvoir avoir la confiance des Français il avait il s'était posé comme étant quelqu'un qui a la force tranquille force tranquille c'était même son slogan quoi face à celui qui était le jeune loup agité moom mu ñëw indi la force tranquille te boo seetee Mitterrand toute sa vie politique c'est quelqu'un qui apparaît toujours comme quelqu'un de calme de posé du mer du wax de très réfléchi image boobu la doxal terewul nag après gis nañ ne ndekete waa ji xëy na melul noonu mais image bu mu dawal la boo xam ne doxoon na mu dem Sénégal boobu la Abdou Diouf woowoon pour mu defal ko stratégie defe naa bokkoon na sax ci li gënoon tax sénégalais yi mer bu dem bu telli mm-hmm. Ablaye Wade voilà parce que Sénégal ñëw na Sénégal mën na marketing mm-hmm. mais étude bi compréhension marché bi defe naa foofu euh, la doon sooxee ndax waxu PIB la doon wax mm-hmm. waxu croissance ci la Moustapha Niass waxee woon ne croissance kenn du ko lekk parce que boobu li muy wax ci ay croissance les gens xamuñu sax luy croissance waxuma laa nga naan leen le panier de la ménagère et cetera bon yooyu mën gis tey ci Obama euh, gis ko ci Mitterrand gis ko ci le président français aussi qui a fait une campagne énorme avec une très grosse stratégie euh, j'oublie le nom du président français là. Euh, euh, l'actuel président. Macron Macron qui a fait une très bonne. avec une sénégalaise. non sa stratégie était énorme il a fait une très très bonne stratégie voilà et c'est pourquoi il a gagné. et c'est pourquoi jusqu'à présent d'ailleurs il occupe le terrain politique français et cetera mais dama bëgg wax stratégie yooyu quelles soient des stratégies raisonnées ou pas amoon na déjà pour que ñu mën a daanante ci. affaire du rek ay affaire ay carte électorale fraude wala yu mel noonu dëggantaan stratégie bi ngi ci ginnaaw bu fekkee ne am nga ko defal stratégie pour nga mën ci génne jamono ji ñu nekk ci li nga xamante ni mooy jëm ci élection ak yu ni mel ku ci nekk yaa ngi jëm a xool lu nooy na nga dagaanee baanu askan wi mhm. donc ñu gis kenn koo xamante ni peut-être qu'on peut dire que euh, dafa jël benn stratégie de euh, benn stratégie politique bi nga xamante ni. Mhm. moom la bëgg kii pour euh, jël jeunes comme du genre ab Wade yu mel. Mhm. Euh, on peut prendre l' de de de Sonko bi nga mhm. xamante ni commencé na xëcc ndaw ñu ci benn ci benn ci benn esprit. donc yow bool boo xool kooku type de communication bi mu utilisé wala type de marketing bi muy utilisé. ndax mën nga wax ne c' est c' est actuellement ci li nga xamante ni moom mooy politique bi ñu nekk nii. dafa am benn wax bu Abdoulaye Wade wax boo xam ni ñu ci bàyyiwuñ ci xel. dafa ba mu gisee Sonko daf ko ne euh, quand je te vois je revois en je revois en toi le jeune que j'étais et je crois que Sonko n'a pas été bête cest à que mm. a il a il de de voilà le problème juste c'est que Sonko fait ce que Ablaye Wade faisait c'est tout simplement que nous sommes dans un état boo xam ne structurellement régler problème jeunes yi dafa jafe structurellement c'est pas conjoncturel c'est structurel fii créer fi plein d'emplois à court terme moom mënta ne loolu il faut ñu waxante ko ba mu leer président bi fi munti ne bu ne am nga à part Senghor bien sûr euh, ñi fi nekk ñëpp am nañu problème mu emploi des des jeunes tey képp koo xam ne bëgg nga am électorat ñi nga mën a cibler mooy les jeunes ndax mooy ñi gën a sonn boo seetee tey Sénégal ñaata jeunes y a plus de deux cent mille jeunes qui entrent par année te deux cent mille jeunes mooy li nga xam ne peut-être duñu xam nii la rek defe sax secteur privé sax na compté wuñu leen mm-hmm. deux ne chaque année ñu dugg dans alors que l'emploi, le marché n'absorbe pas autant. Mm-hmm. L'autre aspect, c'est que l'essentiel des entreprises au Sénégal, et même des grandes entreprises, l'essentiel des entreprises au Sénégal, c'est le secteur informel. Donc, dañuy liggéey loo xale mais c'est pas formalisé. entreprise yu bëri yoo xam ne dañuy tuddee entreprise formelle ils ont un mode de fonctionnement informel. donc loolu pour nga mën a sax euh, capitaliser seet ñaata jeunes ñooy dugg ñaata jeunes ñooy génn sàngam nangam problème la euh, boo xoolee souvent université bi. les gens préfèrent bon être dans des conflits avec les étudiants et tout parce qu'ils se disent que ñii bu ñu amee diplôme ñu jàng après on a un problème ni ñuy def ak ñoom après et cetera donc yëpp ay problème la moo je crois que Sonko n'a pas tort en tant que jeune aussi il faut bien le comprendre aussi en tant que jeune leader il est de cibler notamment cette population et de jouer sur leur frustration. donc, il a préféré euh, euh, frustration bi la la jaarale yëpp. Aujourd'hui, l'emploi des jeunes, il en parle beaucoup. Je crois qu'il a écrit un livre, je crois, je n'ai pas lu le livre, mais je crois que ci discours am lu ci wàllu emploi des jeunes. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, euh, à la différence de Ablaye Wade, est en train de faire ce que Cheikh Anta Diop faisait parce que tam Sénégal malheureusement yéen journaliste am am ngeen ci responsabilité bu rëy mooy doo leen fàttali li xewoon Sénégal boo xoolee fi Cheikh Anta Diop jaaroon ak Senghor te mu gënoon a metti mu dem créer journal bu tudd euh, Euh, xippi euh, siggi du moins dem ba ci biir ndeysaan ne siggi bi doy na euh, léegi nañu def taxaw et cetera ba Senghor defoon loi boobu dinaa day xool grammaire magazine yooyu ñoom et cetera Cheikh Anta ba mu demee ba xam ne xam-xam kese taxul nga génn ci dafa taxawoon ne pour qu'il y une intégration il faut partie de la base vers le sommet boobu la ñëw commencé encadrer jeunes yi ne jeunes étudiants yi nekk Dakar Sénégal fii di jàng ne ne léegi bu weer at mi jeexee nañ dem ci tool ya ñu dem liggéey les vacances citoyennes dont on parle mais c'est c'est que malheureusement les hommes politiques euh, souvent loolu bokk na ci li ma gën a metti Sénégal du ñu du ñu def li intellectuel di def maanaam citer la source ba Ablaye Wade di def son truc là nu mu tuddati encore son truc de d'intégration africaine là euh, NEPAD. NEPAD il y avait un certain Déthié Diouf maa ngi koy nuyu ku baax ndeysaan bu doon diriger affaire bi bi njëkkee tase waxtaan dama ko ne Déthié en quoi est-ce que lan la leen di yàqal ngeen taxaw ne le plan économique pour l'Afrique est inspiré de Cheikh Anta Diop parce que moom moo bind fondement économique d'un futur état fédéral d'Afrique noire ba mu xalaatee ci africain ci culture ak ci yëpp dafa taxaw tam teg la voie économique pourquoi ngeen di koy doxal fàtte ko parce que am na RND mais RND on s'en fout fàttali leen Cheikh Anta parce que moo ko liggéey bon man damay bëgg tamit bon je crois aussi que peut-être que Sonko aussi te le dit hein je ne sais pas je ne suis pas tout le temps aussi voilà mais je veux dire c'est important di que vagues yi ñuy def loolu Cheikh Anta bokk na ci ñi ko def Sénégal mu doon loo xam ne tey aussi c'est une pratique et l'avantage est que doo taxaw rek di dénoncer c'est c'est l'avantage que ce gars-là apporte ce monsieur-là apporte au lieu de dénoncer seulement il apporte aussi des solutions pour montrer que même si je n'ai pas été au gouvernement même si je n'ai pas été Premier ministre j'ai quand même la possibilité de vous apporter des solutions. Il l'a fait pour euh, l'agriculture, il l'a fait récemment pour l'artisanat. J'ai vu récemment aussi sur les réseaux sociaux que béykatu oignon yi sax léegi ñu koy woo ne ko bon waxal gars yi ñu lekk pour ñu jaay suñu suñu moi je crois que très sérieusement il est en train de mettre en place ce marketing une stratégie niche ça une stratégie de spécialiste il a compris que il a compris en tout cas ci li comprendre lecture ma am la donc du voilà li ma gis mooy il s'est dit Euh, politiciens li ñuy def actuellement au niveau de la majorité mënuma ci ànd te mënuma fa bokk ñi nga xam ne tam dañ tuddee seen bopp opposition modérée wala opposition boo xam ne mosoon na di bëgg mosaat ñooñ tam xëy na mënuma ànd ak ñoom donc je n'ai qu'à utiliser une voix boo xam ne dama ciy wéet mais dinaa ci wéet wéet boo xam ne dinaa mën a wax ak nit ñi dina am couloir dinaa mën yee nit ñi te nank-nank nit leen ñëw fekk si ma donc loolu il a essayé commencé ko di dénoncer di wane ne dëgg la ak yu mel noonu même si ci diggante bi xeex nañ ko ba sonn mais defe naa ba tey son image quand même reste euh, une image bonne à mon avis hein euh, voilà donc loolu yëpp dugg na ci ba dem léegi tey li ko dese mooy se rendre quelqu'un de présidentiable defe naa moo taxoon il y a mois ci ginnaaw wala daaw sax buñ ko journaliste yi laajee ne ko yow tax duñ la dégg ngay kaas mu ne léegi yooyu bàyyi naa ko ak ñoom jomaay mais dem na ba ci biir bon gars yi attaqué waat ko mu commencé waat duggaat ci ci ci yooyu et cetera mais je je crois qu'il a une stratégie politique je crois ah je crois qu'il a une stratégie politique parce que liy feeñ mooy il est dans une stratégie de niche il se il se distingue des autres il ne cherche pas à avoir toute la masse parce qu'il comprend que pour am la masse du yomb parce que sénégalais on a une culture ancrée fortement c'est-à-dire quand dans dans les nations à, à culture fortement ancrée dans le passé généralement c'est des gens conservateurs c'est-à-dire c'est des gens yoo xam ne pour ñu changer day xaw a jafe dans ces types très euh, bien euh, très bien dans ces types de sociétés là ñaare les plus les plus euh, adaptés c'est les jeunes jeunes mooy toujours ki nga xam ne day nangu changement moo tax américains yi raw nit ñi boo gisee américains yi raw nit ñi c'est parce que ñoom amuñu culture ancrée ñoom melting pot la am dañu tase créer seen culture mais boo demee ay Europe Afrique wala Asie wala ñu mel noonu pour nga déclencher changement day metti parce que nous avons des cultures très ancrées dans le temps et nous avons plus un réflexe de conservateur et les jeunes sont plus sensibles au changement. donc euh, si wàllu euh, am ay li nga xam ne mhm. euh, politique. ki nga xamante ne day utiliser marketing ak ko xamante ne utiliser marketing politique euh, ban avantage la ki xamante ni euh, ku mel ne Malick mi bëgg a euh, briguer benn benn localité. Mhm. donc ban avantage la moom la am ci bu utiliser kii bi marketing politique boobu. super mën a gagner li mu bëgg. dafa am loo xam ne il faut que mu leer marketing kese kese kese kese mënul régler ce problème parce que politique dafa am ay réalité mais terewul boo utiliser yoonu marketing. li nga bëgg war nga koo mën am ma jox la benn exemple bu simple Sénégal depuis Senghor dañ jàppoon ne boo nekkul koo xam ne am nga xaalis di dog bu mu gàcce yi doo mën a falu loolu lañ jàppoon Sonko ñëw ne déedéet mun nañu nekk ak nit doo am dara nit yi di lay jox nga leen di defaral il l'a prouvé c'est extraordinaire loolu c'est une approche que j'ai énormément appréciée que j'ai trouvé très très très mais nag li indi lan la mooy en amont nga étudier sa cible nga étudier sa ñi fi nekk ñan lañ ci biir ñi fi nekk saa boo étudier marché bi wala boog électeur bi ba doyal nga xool seen caractéristique caractéristiques yi c'est les caractéristiques physiques ban taille et cetera et tout euh, tranche ñoom seen naka lay évoluer et tout xool les caractéristiques comportementales naka la ñuy doxalee xool les caractéristiques attitudinales naka la ñuy xalaatee naka la ñuy gisee et cetera et ba nga nànd ko ba peeg ko nga mën a doog a nag secte stratégique mooy ban cible lay choisir boo seetee ku mel ni Sonko par exemple moom waxul ak ñëpp dafa am ñu muy waxal ñu si des day maslaa ak ñoom xaw ma seet nga li ma la parce que dafa am cible dafa am lu ñuy wax cœur de cible ñooñ ñooy bi nga xam ne mooy sa cible principale ñooñu lay waxal ñu si des nag day maslaa ak ñoom bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul garaawul mais moom am na ñoo xam ne ñoom lay waxal mu teg loolu donc ñooñu boo leen tegee nga teg sa produit politique comme Sonko ni mu nekkee produit politique Sonko a compris que produit politique gis nga seen dernière sortie ay costume ak ñoom seen da ko sànni fële léegi yére wolof lay sol baxane bi sol ay mbiru pour montrer l'africanisme ak le panafricanisme bi mu ngi dawal c'est très important te loolu dafa bokk ci li ñu koy defee xam nga récemment ñu ngi tooñ benn waaye defe naa ministre la xaw ma directeur la daal bu demoon ci banlieue bi sol costume dugg ci ndox mi xam nga yooyu par exemple si si c'est contraire à si si c'est vraiment contradictoire nga nekk koo xam ne nga am compassion ci ku amul nga ñëw ko wan li nga am yëpp moo tax ma ne da ngay adapté wu boo xamee nit bi ñu mel da ngay adapté wu c'est ce que Sonko par exemple est en train de de et à mon avis je sais pas loolu étudier wu ma ko analyser wu ko xawma mënuma la ci wax ay données parce que xam-xam tam day wéeru fenn mais daal gis naa ne dafa mel ni ñi nga xam ne ñoom gis nañ seen bopp ci moom loolu sopp nañ ko waaw ñi si des nag je ne sais pas loolu yaakaar naa ni ñu ngi def étude. ndax ma ndax Macky Sall deful deful marketing politique bu xaw a euh, bu xaw a négatif tuuti parce que gars yi di ko bëri ñàngal la n'est pas tolérant du genre est ce que nekkul gars yi utilise quel certain défaut ci wala benn certain brèche yoo xam ne ci moom ñu utiliser ko ci marketing ngir ngir ngir yàq ko kii politique am wala yàq communication non c'est-à-dire que on est dans la guerre on est dans la guerre boo gisee stratégie bu njëkk ba ci militaire lañ ko doon jàngee tey militaire dañuy jàng ci stratégie ci entreprise yi ak ci organisation yi ndax fa la guerre ëppee tu comprends ce que je veux dire il faut bien comprendre ce qui se passe waxoon nañ ko defe naa sa benn émission Macky Sall le fait que mu nekk ñàngal du lu bees benn waaye dafa ñëw ne ma Macky Sall dafa ñu bett ma ne ko kan la bett Macky Sall bettul kenn Macky Sall ni mu meloon noonu la mës a mel c'est que da ngeen ko mësul bàyyi xel mais ni mu meloon noonu la mës a mel voilà mais Macky Sall a fait ses propres choix lui le président lui quand il est venu en tant que président en tant qu'homme politique en tout cas je parle de Macky Sall homme politique il a fait ses propres choix stratégiques où il se sent à l'aise Macky Sall c'est pas un littéraire c'est pas un philosophe c'est un ingénieur ingénieur foo ko fekk day doon koo xam ne day ordonné day carré day réglé et cetera or ingénieur foo ko fekk noonu lay mel ci boppam d'abord c'est rare nga gis ingénieur boo xam ne day bëri xorom ak yu mel noonu donc moom xam na ses propres capacités lan la fan la gën a aayee ak fan nga xam ne foofu la gën a moins aayee loolu xam na ko wala déet un boo koy seet dans son discours c'est toujours quelqu'un de très or de très ordonné euh, de très mesure mesuré. Tu comprends ce que je veux dire C'est quelqu'un qui est dans la planification, qui est dans, les, dans le factuel, dans les chiffres, etc. Et c'est quelqu'un qui montre peu d'émotions. Tu comprends Parce que c'est la, la, caractéristique même de l'homme et de son, parcours. Tu comprends ce que je veux dire L'élève Lichides Moy, c'est quelqu'un qui a eu la chance d'apprendre de l'ensemble des autres leaders. C'est-à-dire que jàng na ci Senghor ndax ñi liggéey ak Senghor ñu ngi moom jàng na ci Abdou Diouf ndax ñi doon liggéey ak Abdou Diouf nañ ko jàng na ci Ablaye Wade ndax moom ci boppam nekk nag Ablaye Wade et il a sa propre perception de l'homo sénégalensis qui fait que xëy na moom jàpp na ne bu fekkee da ngay wut mun nga naxanteeg nit yi mais boo demee ba toog xëy na sénégalais mel na noo xam ne boo nooyee ak moom doo ci génn bu fekkee da ngay maslaa ak moom doo ci génn boo demee ba toog war a doxal te à la fin dañ lay laaj résultat foofu doo fi nekk di maslaa maslaa bu bëri da ngay seet la nga xam ne moom nga war a def nga def ko te bañ a nekk di ci xalaat xalaat bu bëri man loolu laa gis ci moom lu muy doxalee léegi nag certains peuvent dire que la communi euh, la stratégie est bonne n'est pas bonne loolu euh, bon ku nekk ak ni ngay gisee mais jàpp naa ne moom am na stratégie bu leer nañ parce que jàpp naa ne même sax ay borom xam-xam ñoo ko wër te li muy def foru ko ci mbedd mi maanaa li muy def lu ñu xalaat la lu ñuy def la du loo xam ne rek daf ko for noonu c'est quelqu'un de très raisonné c'est quelqu'un de très froid ci li ma gis man ah. voilà et c'est quelqu'un muy def xam na bu baax li muy def ak fan la jëm léegi nag boo ko seetee ba seet nekk na fi président 2012 defe naa. ba 2019 defe naa voilà. ba 2019. gars yi lu nekk amul lu ñu ko waxul ci moom mais 2019 bu mu ñëwee gars yi watal nañ ko wala seetlu woon loolu. parce que c' est quelqu'un qui comprend le temps de l' action et le temps de l' te loolu du moom kese. tey jii ku mel ni Sonko bu fi nekkoon président dina jommal ñu bëri. parce que boo yoree lenge yi war a doxal dëkk bi. dem waxtaan yeeg kafoore yi day jeex taxaw di dénoncer dootoo ko mën def. taxaw di négocier ak ñi ci amatoo ko. da ngay taxaw léegi war a doxal parce que ay résultats la ñuy xaar ci yow. voilà léegi nag c'est comme je le dis Mariama Ba disait que euh, les princes dominent leurs sentiments pour honorer leur devoir les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime les autres c'est quelques-uns dans ce groupe-là mais quand tu diriges les moyens sont toujours limités tu fais des choix qui peuvent être pour certains et moins pour d'autres voilà léegi nag dafa fekk ne sénégalais dafa bëgg compassion suñu su bokk na ci li nga xam ne suñu culture la bu dañuy gaaw a yërëmaate dañuy bëgg tam ko am yërmande dañuy bëgg ku suufeel boppam dañuy bëgg koo xam ne euh, lu ñu def mu ñëw taxawu ko et cetera et tout ñu loolu lañu bëgg xëy na président foofu la sooxee xëy na mais loolu man du ma ci sori parce que ban jàpp naan il a des conseillers il a des gens te xam na fu mu jëm te xam na lu muy def tey mënuma prononcé wu ci ne stratégie Macky Macky Sall baax na wala baaxul ndax xaw ma quels sont ses projets xaw ma ndax moom dafay préparé wu pour def troisième mandat wala déet xaw ma ci dara xaw ma ndax dafay préparer dauphin xaw ma ci dara xaw ma ndax sax dafa nar a démissionner balaa boobu xaw ma ko donc si tu n'es pas dans la cuisine mooy li ma doon wax journaliste yi bàyyi leen di def de la météo politique pour des gens yoo xam ne xam nga fu ñu jëm ndax kii dem ci biir lay toog la stratégie est par essence secrète nit ki fu muy toogee lay toog tabax ko ba mu baax xam fu mu jëm di doxal yow li ngay gis rek ci ngay apprécier fekk waa ji moo tax su ñaan kii duut nañu fekk du question duut xamu woon fu mu jëm moo tax ngay apprécier li ngay gis fekk moom xam na bu baax fi mu jëm te xam na ne yoon bu mu jaar yoon bu baax la. donc yow nga nekk expert international en communication nekk aussi directeur général bu Avantage Consulting. Mhm. donc yow euh, je pense da liggéey ci lu bëri bëri ci wàllu marketing. Mhm. donc yow seen secteur mu mu gën di gën di liggéey ndax euh, juste dans le dans le marketing promotionnel. Mhm. dans le marketing distribution yan yan façon kii moom ngay gën di di di liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy say say say say. Euh, say clients say partenaires wala say ndax day am ñëw wala juste entreprise moom ñooy gën di ñëw di. voilà je, je voudrais aussi dire que je n'ai jamais travaillé pour un candidat il faut que tam mu leer. mosoo def communication politique pour un candidat. marketing man marketing politique laay gën a wax parce que communication benn aspect rek la ci marketing dama bëgg tam loolu di leer. boo gisee ñu ne. marketing moo nekk ci biir communication wala communication moo nekk ci biir non marketing moo nekk ca kaw. parce que bu dëkk bu njëkk ba on parlait que de produits et services. donc marketing moom moo jur communication Philippe Kotler Théodore Levitt ak euh, ak. Euh, Euh, Philippe Kotler, Theodore Levin ak Peter Drucker ñoo développé le concept de marketing management en disant que marketing du rek li ngay def xalaat la d'abord stratégie la moo indi le concept de marketing management management boobu mooy waneen du rek affaire u jaay kese au début affaire de stratégie la donc loolu c'est clair donc boo tegee stratégie nag ba pare xam nga stratégie da nga naan fii laa bëgg dem ñii laa ko bëgg doxalee léegi mu des naka laay doxee la ngay teg pour avancer loolu mooy les politiques politique yooyu moo indi 4P yooyu. Mm. mooy di nga indi produit di indi prix di nga indi communication di nga indi distribution moo tax dama jàpp ne communication ku ko jiital ku ne ñaare boo deful nank day tardé. parce que communication dafa war a nekk en cohérence avec une stratégie man moo tax ma ne la kuy def communication politique. te en amont amoo stratégie politique li ci ëpp ñu bëri loolu moo leen di réer dañuy def communication mu neex ñuy dem rek dem ba ci biir réer ndax dañu am ay wala wax loo xam ne tey waxuñu ko woon et cetera duñ ci duñ ci génn quoi voilà donc lool c' est très important. kon kon yow travaille plus pour le secteur privé ak pour la coopération internationale avec avec aussi des organisations internationales donc côté boobu laay gën a liggéeyee. parce que côté boobu laa gën a gis sam bopp côté boobu laa gën a gis contribution au développement économique comme ni ma la ko waxee am na ñoo xam ne mën nañ politique man mënuma politique wax dëgg yàlla mënuma ko xawma nuñ koy defee et tout quoi que nag ci kër ci politique laa yaroo màggee ci donc xam naa bu baax a baax a baax politique xëy na moo tax sax sawaruma ko def tamit mais li ma mën la wax lu leer mooy tey par exemple man damay liggéey ak ay ONG di jàppale entreprise yu ndaw yu bëri dans plusieurs domaines que ça soit la pêche l'agriculture euh, yu bëri dama leen di si jàppale damay liggéey ak ay PME yu bëri yoo xam ne dama leen di jàppale pour ñu yokk seen compétitivité au niveau national et même di dem di exporter à l'étranger damay liggéey ak des grandes entreprises au Sénégal des grandes entreprises la wax di leen di seen i personnel di leen di ay stratégie leen di waral yoon te yàlla mi ñu ciy may ndam ñu ciy gis avancement et je travaille aussi bien avec le secteur public que le secteur privé loolu c'est absolument clair te ni may liggéeyee Sénégal la liggéey tam ak ay entreprises yoo xam ne nekkuñu Sénégal à l'étranger lañu la ñu nekk li ma bëgg wax foofu tout simplement mooy ñun en tant qu'expert au Sénégal waruñu liggéey kese pour am xaalis dañu war a am ñeewant ci ñi nga xam ne ñooñu la ñuy liggéeyal exemple man dans mon cabinet je donne un exemple très simple moo toujours les gens me dis non je suis pas un businessman je suis un expert parce que du ma business par du ma yore ñaari client yoo xam ne dañ ay concurrent lañ du ma def c'est-à-dire tey bu fekkee dañ réew mi dafa taxaw beneen média taxaw ne ma kaay jàppale ma su ma tànnee kenn ma liggéey ak yow parce que man dama naan genre dans un processus de partenariat ma ñëw rek liggéey ak yow lekk sa xaalisam déedéet dama naan la nañu ànd accompagnement parce que sama liggéey lan may fay neex neex neex na ma enfin neex na ma parce que daf may permettre ma am xaalis rek la samay problème mais xam nga man la moo may neex sama xol dëggantaan mooy réussite bi ma toog gis ne ñii dañu amoon personnel boo xam ne par exemple euh, ils ils avaient pas un bon leadership y avait des conflits entre eux déggoo wu ñu woon directeurs yi sax et cetera ñu ñëw defay fay activité mooy ay team building wala ay formation en leadership en management sax ba yeewu suba teel gars yi ñëpp juboo muy dox ñii ñëw am problème commercial seen vente yi doxul wala seen commerciaux yi ay ñu wala directeur bi amul ay outils wala yu mel noonu nga ñëw taxaw accompagner leen ba ñu génn ci biir taxaw lépp di dox seen résultat bi dox ñu nekk ay milliards def ay publicité téléphonique ñu koy wax loolu daf may neex tu comprends très bien ce que je veux dire c'est le cas dans la communication c'est le cas entreprise yi ni mu méttee nga ci def ay milliards nga woo ko mel ni man avantage consulting ne bon monsieur Kane nous on va lancer nouvelle activité defal ñu étude noo war a nekk étudier leen et tout xam ne étude boobu li ñu nar a investir yëpp looloo koy déterminer nga war a ci taxaw def ay étude xoolal leen tegal stratégie ba ñu génn et cetera de la même manière aussi ay programme yoo xam dañuy laal mbirum environnement je travaille avec des euh, organisations internationales avec l'état du Sénégal ci yooyu di leen di jàppale ci ni ñuy defee ay de communication ci naka la ñuy def ba affaire gën a dox et cetera et tout loolu dama koy def euh, ci domaine donc euh, développement de manière générale le domaine de l'énergie et mais globalement li may boo xoolee ñi may gën a liggéeyal ci entreprise yi c'est plus l'agroalimentaire vraiment tout ce qui est agroalimentaire c'est peut-être 60 pour cent de mes activités ci ni may gën a jàppale ci entreprise li ci des y a tout le reste le secteur touristique nga xam dama leen di jàppale euh, le secteur minier aussi. <laughs> voilà donc couche yëpp daal lañ koy laal. non parce que xam-xam marketing bi mi ngi fi. y aussi que je suis pas seul aussi j'ai une équipe c'est-à-dire que su may liggéey tey j'ai quelqu'un qui est spécialiste en communication digitale donc tout ce qui est digital euh, marketing digital et tout dafa am ñu fa nekkee j'ai une équipe d'enquêteurs avec des superviseurs et c'est des gens yoo xam ne c'est des experts aguerris yoo xam ne ils sont connus et ils ont travaillé avec des grandes organisations ñoom laay liggéeyal et cetera euh, ñi may liggéeyal tam comme staff administratif c'est des gens yoo xam ne damay je dis tout le temps su may dem di def liggéey ak client man maa koy njëkk wan lan mooy marketing man noonu laay liggéeyee toujours les gens me disent mais Kane tu mets trop de moyens tu fais trop tu gaspilles je dis non je gaspille pas dama bëgg ki may dem di wani mu xam man lan laay def ak luy sama liggéey ngir li ma koy wax mu xam ci man laa njëkk ci man njëkk laa ko jiitalee quand je vais chez le client je m'occupe pas seulement de savoir ndax jox naa ko xam-xam déedéet je fais tout un travail par exemple nous on a une charte satisfaction client en 10 points boo xam dañ naan la bu ñuy liggéey ak yow ñuy njëkk a mooy prédiagnostic le prédiagnostic est gratuit mën nañ toog 2 mois di liggéey ak yow xam lan nga soxla duñ la ci fayee ko fistin ñun ñooy fay loolu man maay en plus mooy fay loolu leneen li ci des mooy bu ñuy dem ak yow dañuy teg plan teg ay objectif objectif ñuy teg bu ñu demee ba liggéey bi jeex si on n'a pas atteint l'objectif mën nga ne du leen fay dañ nga koy signé daal ñu bu la neexee nga bañ ñu fay bu la neexee tam nga ñëw ne recommence ko ba mu sotti ñu doog la fay ñu recommence ko à nos frais ñun loolu dañ koy def quoi ça on garantit nos prestations li may wax ne nous sommes les seuls à garantir des prestations intellectuelles ici au Sénégal voilà. donc li ñu cëraloon si waxtu dafa mel ni dafa jeex donc euh, juste euh, ñu tàggatoo rek benn kii bi nga def nga ñëw si euh, en trente secondes rek. Mhm. ban conseil ngay jox jeunes yi ci li nga xamante ne mooy wàllu spécialisation ci wàllu marketing parce que je mhm. pense que defoon nga ko ci premier forum de l'emploi mhm. doon wax ñu utee emploi lu mel. donc mais bi dañ koy dañ koy si wàllu marketing communication. donc ñi dañoo bëgg def marketing donc euh, boo leen jox conseil ci ban fànn lañ nga gis ne moom moo nekk instant bi mhm. ci euh, offre marché bi ci nga xamante ne buñ kiiyee taj lañ mën a am euh, emploi mais ma une seconde rek laa lay ñaan mhm. ci marketing politique wala marketing électoral wala whatever mhm. soo bëggee doxal bàllum élection boo jàppee ne am nga xaalis kese wala am nga soutien président taxul nga génn ci étudier sa marché wutal ay expert en marketing nga def étude du marché électoral composition bi caractéristique ba mu leer nga dem xooli fichier électoral bi lan moo fa nekk parce que li ñuy wax ak li nekk ci fichier bi du benn nga dem gëstu ko pour mën xam exactement comment est structuré le fichier fan la ñu nekk nga lu zone boo bëgg dem bu ne nga dem fa étudier xool caractéristiques yi attentes yi la fa dox la fa doxul lan la ñuy xaar lan la ñu bëgg dégg parce que booy def politique tu es dans tu es dans le domaine de la promesse en fait ah même si quelqu'un disait que la la les promesses n'engagent que ceux qui y croient Abdou Diouf Abdoulaye waxu ko daf ko répété woon rek wax dëgg yàlla euh, il faut aussi le dire mais tu es dans le domaine de la promesse ndax taxawagoo loolu boo paree nga teg stratégie stratégie ci marketing politique ñett la mooy ciblage mooy kan laay ciblé cible nag du benn kese da am lu ñuy wax cœur de cible mooy da nga naan ñii ñooy sama cible gën a ëpp solo ci man ensuite nga teg li ñuy wax ay cible tam ay cible périphérique cible périphérique yooyu mooy ñi nga xam ne mën naa agir ci ñoom pour ñu influencer ñeneen ñi ngir ñu bëgg ma ndax am na ñoo xam ne bëgg ma du yomb si ñoom mais ñii su ma jaaree si ñoom bu ñu waxee ñeneen ñi mën nañ tax ñu gën maa bëgg ñetteel ba ñaareel euh, ñaareel ba du moins mooy le positionnement mooy il faut nga am taxawaay boo xam ne daf lay distinguer ak ñi ci des c'est très important nga am taxawaay boo xam ne daf lay distinguer ak ñi si des Sonko est en train de réussir peut xam au lieu ma mel ni ñi si des damay taxaw foo xam ne da may ràññee ni kii lii loolooy mbiram te loolu la ëppalee ña ca des loolu mooy positionnement troisième élément enfin Macky Sall tam loolu la defoon na ba nekk président voilà mais bon euh, c'est juste pour donner des exemples on n'a pas beaucoup de temps troisième élément mooy stratégie de position mooy nga toog ne man fan laa bëgg nekk est-ce que dama bëgg ci wàllu politique ma nekk le leader est-ce que ci wàllu politique dama bëgg nekk le wala est-ce que Touba Lopry dama bëgg nekk koo xam ne dañ koy ber ne kii moom bokkul ak gars yi ci côté boobu moo leen ci mën loolu stratégie la boo xam ne da nga ko war defal nga raisonné ko sinon VAR dina la rattrapé. te rattrapé non parce que amuñu strat amuñu stratégie boobu ñoo di def sur le terrain amul njëriñ dafa am na njëriñ mais c'est pas le plus important le plus important c'est la stratégie. bu taxawee nag stratégie bi mooy génnee tout le reste mooy man ban produit politique laa laa war a nekk bu dee yow yi candidat nga. bu dee da nga yore programme nga ni man sama programme ban produit la war a nekk bañ rek bind livre yam ci mais livre bi nga siiwal ko fexe ba nit yëpp naan ko parce que boo bindee livre fekk am affaire bu dee tamit duñ ko séddalu ba tam du affaire te léegi médias yi mel na noo xam ne information bu génnee midi balaa 13h ñu fàtte ko ndax beneen information ñëw na donc il faut nga seet nooy daralee loolu wa parce que loolu mooy sa produit politique quand tu nga xam ñaata nga toll mooy élection yi ñaata laa amoon élection yi di ñëw ñaata laa war dugal nga xam sa poids électoral en le prix politique c'est un poids électoral ensuite nga teg sa communication nga seet ban stratégie de communication la war a def ban stratégie en termes de notoriété ban stratégie en termes de d'image ban stratégie en termes d'adhésion du public à mon en mon discours bonne en termes de satisfaction aussi de mes électeurs et notamment sur mon comportement et da nga ko war a teg su fekkee nga mën teg sa communication seet fan laay jaar pour mën def sama communication par rapport à tes forces et faiblesses distribution mooy ta représentativité parce que da nga nekk ci dëkk boo xam ne xëy na fi ñuy dem fi ñuy war a defee vote bëri na nga seet fu nekk naka lañ ma fa war a représenté foofu tamit jarul nga nekk fépp bu fekkee dafa am foo xam ne amoo fa benn doole bu fa nekk wala boobu mën nga fa nekk noonu pour la forme mais nga concentre say doole ci fan nga war a nekk foo xam ne foofu boo fa demee boo góor góorgóorloo war nga fa mën a am chance nga teg stratégie au niveau local pour attirer ton public vers toi au niveau local ce qui fait que li fa bëgg am nga nga am ko donc juste pour diir que ni marketing politique boobu xam-xam la communication politique ci biir marketing politique la nekk de noonu de Euh, représentant yi ñuy teg ci dëkk yeeg affiche yi ñuy def ak yooyu yëpp ci biir marketing politique la mais ca njalbeen ba il faut nga def étude xam bu baax kuy électorat bi xam nag laa wax. xam du rek ay quantité. parce que étude de marché wax naa tout le temps ne boo defee enquête yam ci yaa tooñ sa bopp il faut faire des études qualitatives dem seet nit ñi ñuy dundee ni ñuy xalaatee nga def ay focus group ak ñoom seen pour seet li Youssou Ndour doon wax lees waxul parce que sénégalais dañu am kersa sénégalais du la wax dëggantaan li mu bëgg. donc il faudra ay étude en profondeur pour que ci biir wéetaay nit wax la li nga xam ne mënuñu koo wax ci mbedd mi waaye yow di nga ko xam parce que loolu soo ko xamul yow boo deful nang di nga am ay étude am ay résultats ci doo ci génn loolu c'est très important ensuite nga teg stratégie ensuite nga doog a teg say éléments de mise en œuvre léegi li may wax jeunes yi c'est la même chose mooy boo amee projet étude de marché un projet ñaar la démb maa ngi koy wax benn expert bu nekk feneen di liggéey ci affaire développement projet mu ne ma kan fii on est dans l'ingénierie mais gars yi naan nañu projet ma ne ko waaw projet dafa am ñaar ba ñett yu ci am solo benn mooy lan laa war a def loolu marketing la ñaata est-ce que am naa marché ou pas marketing li ci des nag leadership la mooy est-ce que pare naa pour dem dem booy def booy def dara demal seet bul seet ne lii am na fële naa ko def waxoon naa ko fi naa ko waxaat benn nga xool lan la ñitti soxla te nekk ko fi te loolu seen biir quartier rek lay commencer xam nga bi ñuy def forum du premier emploi euh, en 2018 defe na dama ne woon xale yi ñu waxtaan ci mbirum mbalit yeeg ñoom seen ak yooyu ñu ci waxtaan ñu taxaw di wax ay wax yu rëy ma ne leen waa yéen seen quartier amul problème mbalit ñu ne axankay temps yooyu Mass Thiam xëy muy def lu muy def man leen mais pourquoi créer leen business au niveau local te pourtant problème mbalit am na ay gëriñ ñu ak seen sa ak seen saret jël mbalit bi far ko tuuraat ko ci mbedd ñi te fa amoon na business boo xam ne lekk mi foon cest projet jarul ngay wëri naan naa damay dem internet gis naa Bill Gates États-Unis jaru ko ndax États-Unis ak Sénégal du benn toogal seen nit yi lan lañ soxla te amuñu ko wala lañ lan lañ soxla te liñ ci am doyul lool foofu ngay wëree projet tu comprends bu fekkee wër nga ba gis nga seet la muy laaj soit am nga ko nga def ko boo ko amul nga seet ku lay jàppale bu dee am nga ko te xamoo naka lañ koy defee nga dem wuti benn benn partenaire comme ni gars yi ji def dans le domaine de la restauration ou l'hôtellerie mooy nga dem nekk dans ce qu'on appelle des chaînes de franchise tey boo jëlee ay Radisson franchise la boo jëlee ay euh, ay Uno tout ça ay franchise la mais gars yi dañuy mus dañuy dem foofu jàng ci franchise yi ñu jox leen seen xam-xam ay at ba ñu mokkal ñu doog a nag wéetal seen bopp dem naar li libanais ñoom loolu tax ñuy ñuy réussir ci lépp lu ñuy def yenn sénégalais loolu lañuy def tey MSN mooy diriger je crois les réseaux de franchise au Sénégal moo ci moom mi ngi créer franchise voilà je crois kook tam ku jara waxtaanal la xëy na ngir mu yee nit ci ci loolu voilà voilà donc maa euh, lay gërëm mhm. di la sant ci invitation bi mhm. di leen di gën a encourager ci fi ngeen taxaw loolu laa bëgg vraiment wax leen ko ngeen xam ko mu jugee sama xol mhm. état munoo ko dénk benn nit ne ko defal lépp mënul ne réew mi sunu réew la kenn ku ne bu yeewoo war na mën seet lan la war a mën def pour defaat réew mi ku nekk nag ak sa xam-xam ak sa kattan ak sa mën-mën kii day yeew na naa yar yedde kii ne dafay naa yeew ma bale kii ne dafay yeew ma jàngale kii yeew faj sangam nangam y'a beaucoup maintenant d'action d'ailleurs ndax de solidarité au Sénégal foog ñu taxaw ci loolu ñu ci yeewu média yu bëri Sénégal xaw nañu leen mere ndax par parloo par parloo amul njëriñ ci ak dëkk Euh, euh, bu ñuy wax état état notion état c'est lié toujours à la notion de nation te boo xoolee suñu devise lan la un peuple un but une foi su ma gisee ñuy jaxasoo diggante ay tarixa ay waasoo ay parti daf may feebar alors que dans tous les états du monde même bu politiciens yi di rayante dañuy am lu ñuy wax ay consensus consensus fort yooyu bokk na ci ñu koy defar c'est les médias les médias c'est pas le quatrième pouvoir les médias c'est le deuxième ou le premier pouvoir il faut ngeen xam ko c'est pas un quatrième c'est un premier pouvoir parce que média mooy defar dëkk mooy defar nation kon fi ngeen taxaw di def ay émissions yoo xam ne day yeete gis naa émission ngóone a ak yeneen émission seen xale je vous suis beaucoup et je suis très fier de ce que vous faites et je suis très heureux aussi que cette entreprise là soit à l'origine l'idée par Mbagnick Diop c'est très important j'ai de respect et pour le président Mbagnick Diop qui est du secteur privé boo xam ne comme il le dit lui-même nekk na fii président bu nee romb na ko premier ministre bu nee romb na ko président assemblée bu nee romb na ko waaye ku ñëw ànd nga ak moom parce que nekkul di def par parloo dafay seet lan lay def pour jëmee réewam kanam ci nu mu ko mënee ci ku mu neex ak ku mu neexul nag moom mi ngi avancé te mi ngi avancé loo ay nit te defe naa loolu tamit bu fekkee ne mooy seen esprit ak ni ngeen di doxalee je crois que Sénégal dina jëm kanam naa leen di gërëm di leen di sant. voilà donc euh, ñu lay jaajëfal je pense que euh, bi moo nekk suñu premier euh, gisee fii ci Rewmi TV mais on a eu a wax ci wàllu entreprise ci wàllu stratégie lu loo xamante ne la jeunes yi soxla nañ ko sénégalais soxla nañ ko politique yi soxla nañ ko mais aussi sama gars yi nit ginnaaw waa waa waa caméraman yi ñoom soxla nañ ko mhm. xam naa du ñàkk benn suuf nañ seen côté multimédia ak yooyu euh, ni ñu ko toxtale ak marketing bi mhm. donc may fàttali ñu yoon dal ak ñi nga xamante ni mooy Mouhamed Moustapha Kane nekk mhm. expert international marketing et communication nekk aussi directeur général bu Avantage euh, Consulting donc ñu leen di jaajëfal rek euh, donc ci teewlu ngeen teewlu nga xamante ni mooy seen émission biir réew mi di leen laa semaine prochaine euh, ci beneen numéro ak ci yeneen invité yeneen thème euh, fii ci Rewmi TV loolu mhm. di jaajëfal seen équipe technique euh, fu ngeen mënti nekk rek ñooy di jaajëfal ñu aussi yéen ñiy topp ci Rewmi TV di leen wax rek continuer def seen abonnement mhm. parce que lu mag dina ñëw mooy li nga xamante ni moom mooy seen télévision mi TV mhm. jërë ngeen jëf